bu ñu ngi sant yàlla baa jul ci salaam. Mm-hmm. sëñ mu mel tey bi dayo mu tolloon dayoo dayoo dayoo combat bi waa làmb la war rek suñu rakk lañ doon bëreel ñëw saa yàlla suturaal ñu ñu am ndam dañ koy sant yàlla di wax ñi supporters yi nañ am yar làmb du wax wax nit wax ju ñaaw wala nga di ko saaga ñun ay kilifa lañ. Pikine am nañ fa ay xarit am nañ fa ay lépp benn tàkkusaan la woon muudu am na ndam boo Niang boo amaatee combat boo amul ku dëkk parcelle yal na ko yàlla may ndam ñun duñ wax lu ñaaw duñ ko def yàlla seede na ko ak yonent bi sport day boole sport day boole mais nit di dugg ci ab géew di def ay mbiram nga di ko saaga façon wax yu ñaaw yi ne nga di ko wax marta ba du jégal am na ñoo xam ne boo saaga da nga koy gis ci saase avant combat bee ñëw maak Sa Touba wax yu ñaaw yu ne wax nañ ñu ko déstabiliser na ci lu ne mais ñun mënuñu déstabiliser parce que fi ñu jëm xam nañ ko sant nan yàlla nag lu ñu ci waaye waxoon jéggal nañ la te xam ne daya bi moo ñu toll dañoo am ay nit Pikine du dëgg benn heure la woon rek jeex na booy ñaa bu amatee combat yal na ko yàlla may ndam ndam li yàlla moo ko dogal ñun amuñu mënuñu lottu nañ ci sàkku ndam dañuy dagaan yàlla rek yàlla moo ñëw may ñu mais ku ñu dëpp micro ngay wax booy wax da ngay wax lu rafet. parce que bor moo le bu ne lañ mën a dabu ba mu des bu wax loolu la ñuy ragal moo Mor Cissé ñëw na nii lañ ko waxee woon waaw beneen bi ci topp maay suñu suñ coalition bi ñu doon def lu ne wax nañ ko ci waaye ñun bi ñuy jàng ñoom juddu ñun 81 ans lañ commencé jàng alquran ba fii waxee yow ni dëkk Kër Bakar nag mu du dëkk Taïba Ndiaye Taïba Ndiaye Kër Bakar Kër Malle min na Mbayeen waa Ndëkku waa Daaf ñaan yi agsi na di wax ni borom nday ju liggéey soo ko yéene yéene ko jàmm te billaahi wallaahi tallaahi mboolem képp koo nga xam ne nag maa saaga woon même bu ma la jégalee li ànd ak man du la jégal dañoo xamul nag mais bu ñu xamee rek nañ am yar yar dafa solo ci doomu aadama ñooñu booy ñaa santu leen ko ku sës ak booy ñaas santu leen ko te duñ ci dara fayeekuun amuñ ci dara nañ am ab yar ñun dugg nu ci géew bi muudu ak booy ñaa ñooy dugg ci biir géew bi la ma leen wax muudu ku koy yab da nga ko fekk mu sol jàllaa bi toog mais bu ngeen duggee ci biir géew bi ngeen war a jëflante kooku ñu amul ci lu ñuy ragal ndam li yàlla na ko jig mooy def choisir boppam amatul lum ñu deseel liñ sàkk woon ak moom lépp depuis ci Eumeu Sène stade Léopold Sédar sant nañ ci yàlla asgor nag moo neex a àndal ku ñëpp xam nag foo jëm ñu yegg wasalaamaaleykum wa rahmatullah waa fay naa la bu baax a baax. waaw gis nga de yàlla ñu boole te ñu xam ne yàlla moo ñu boole moo tax ñu ànd. ginnaaw maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu waa kër gi ak ñi fi toog ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak sutura ak xéewal di nuyu nag sama waa dëkk waa jaamal jàpp nañ ci combat bi def nañ ci lépp lu ñu mën seen ñaan nangu na gis nañ ko maa ngi leen sant di leen gërëm waaw. mais combat bi fu mu tolloon coow li bari ñu naan sëriñu Modou Lo yi dañoo juboo mais coalition boobu jour combat bi lay tas. waaw man li may wax rek man dama ne premier combat ba léegi dama koo fekkee làmb kon mënatul ngande si ñun. Euh, defe naa ne kuy compétir roi des arènes ngay gën a soxla su la yàlla yóbbu ba nga nekk roi des arènes yow plafonné nga mënatoo gën a yéeg kon wàcc rek nga mun nga wàcc rek mun a defaat kon bés mënatul ngande si ñun mënatul doy si ñun waaw euh, làmb làmb moom noonu la. waaw nit sooy màgg sa xel dafa yokk sa jikko di sensé nga xam ne yaa ngi màgg mais sooy màgg sa xel di yokkuwul sa jikko sensé wul nekkoo di màgg kon suñu xel yokku na suñu jikko sensé na moo tax amuñu si benn pression wax dëgg yàlla. waaw dama waxoon ni euh, golo su bëggee daqaar ku yëg daan lañu wax mais ki ki moom golo moom daqaar su bëggee golo danaan tekk daqaar dal waaw. loolu laa waxoon répété waat naa ko waaw waaw. moo tax ngeen indee tey Modou Lo tey. comme rek niñ ko daan indee rek Modou neex naa andi parce que am na jom am na fulla am na fayda am na fit mun na lu muy def te tamit da ci jëmbat fulla sëñ Abdoulaye Mbacke dafa waxoon ni xeex jaru sàkku mais bu xasee ba ñëw nañ ci jëmbat fulla ak fayda ci lu mu dem rek dana ci def fulla ak fayda ndaanaan la jàmbaar la cest ñu muy bëreel nag xamuñu ko waaw xamaguñ ko loolu mooy problème bi parce que Modou ba léegi sax bëreegul yàlla xam ne li nekk ci moom dëgg-dëgg génneegu ko wallaahi waaw. booy ñang numéro 2 yéen ñu ñun nag amoon na jot gu rafet malgré yàlla mooy dogal mais ci sartay ñaan daf ci bokk ni soo ñaanee yàlla pare nga gëm ne li ma ñaan yàlla da koy nangu gëmoon nañ ni Modou Lo day am ndam mosuñu xalaat leneen wax dëgg yàlla waaw ñun yaqin moom amoon nañ ne incha allah yàlla dañuy may ndam yàlla suñu borom lañ doon ñaan may nañu ñu koy sant di ko gërëm alhamdulilah rabbil alamin. waaw si ñoom. ñun dañ doon ñaan yàlla ñoom ñuy musique looloo tax ñun ñaan nangu musique bi laa ko bañ waaw parce que ñoom golo lañ doon wax ñun ñi moom golo gay doxaar gi yëpp waaw. mais léegi comme daan ngeen Boy Niang numéro moo leen dese Pikine. non Pikine moom wàccoon na moom wax dëgg yàlla. Pikine non non c'est fini doy na nag wax dëgg yow bëggoo waa Pikine de. <laughs> da ngaa soxor bëggoo waa Pikine ah bëggoo leen loo fa bëggati lu fa des. Pikine jeex na di waaw Pikine moom jeex na ah. waaw jeex na tàkk. waaw. combat bëri woon na tension euh, ñun noonu ñun moom suñu côté wax dëgg yàlla ma la wax rek ñun wallaahi zéro pression la ñuy doxee déggul ma la wax ñun ñoo njëkk a bëri ñoo ëpp bés yu mag ñoo nekk roi des arènes min nañ lépp lu ñu min la rek nga dem defar ko comme ni nga miinee xëy borosu. noonu lañ mënee géew boobu. mais seen 100% bi neex na macha allah sëriñu Modou Lo dañoo juboo màggoo bokk ndey bokk baay foo gis ma si la Diop gis fa sëriñ Cissé bu sëñ Baab gis fa Mor. waaw pour 100% bi nu mel si sëriñ ci mbër yi noonu lañ mel coach yi tamit noonu lañ mel yàlla moo ñu ko defal nag dañ naan mbooloo mooy doole waaye mbooloo mu booloo mooy doole te loolu lañu yàlla suñu borom defal. coach yi benn lañ écrit yi benn lañ mbër yi benn lañ sëriñ yi benn lañ mbër yi tamit kasaale ka naka noonu moo tax ñun daal yàlla bu ñu cet jiitu ñun ñëpp ñëpp yàlla nañ yàlla boole defal jàmm defal ñu sutur defal ñu xool parce que ñun ñooy mun a ànd pour mun a dem làmb kenn mënul dem bàyyi sa morom yàlla ak Modou Lo ak Modou yàlla ak Modou Lo allahuma di lañ def am nañ ci droit xanaa ah. waaw jërëjëf waaw incha allah bu soob yàlla am benn problème jërë ngeen def merci beaucoup jërëjëf wax leen ñu ngemb dëggal dëggal. mais tey saa. soo ko sant yàlla rek comme li may wax chaque jour rek Modou chaque jour damay jàpp na ba léegi maa ko ameel bor parce que gis nga dix ans du ay caaxaan gis nga maire bi ki mooy yaayam moom ak tànn xujja ñoom laa nekkaloon ci kër gi. ma def fi lu mat fukki at yoo xamante ni góor gi nga xam ne moom moo indi ci kër gi. yéeneem laay mottali ci Moodu tuddee yaay yaayu Moodu doom ba pare jël ma indi ma ci biir kër gi Moodu yor ma fi ba heure bii kon tey man lii rek laa war a def man Moodu pour man dañoo bokk deret lépp lu mu nekk dama ci war a nekk xaaruma ko ci dara li ma war a def laay def barki Seydina Mohamed. waaw parce que yéen xam ngeen bisu Moodu rek ngeen di ma def nii parce que moom la xam nga yow dama la wax benn affaire dama la wax loo xamante ni lu am sens dama ne la 10 ans ku la ko war ci kër sa xorom. kooku amoo loo ko mën a fay man dama dama jàpp ne ba léegi man maa ameel Modou bor man loolu laa jàpp man wallahi lazim parce que dafa ma lebal lu ma ko mënta fay barke alxuraan defal na ma lu ne ci àdduna da daan jógee fii Dakar ñëw ba ñëw ba Touba ngir sama jëmm mais saa ñi gis ne am na coow lu métti métti ba nga loolu mooy jaay lamb loolu lamb la rek est-ce que yaa lambu la rek ñoom ñaar xam nga ñooy mayante xaalis booy ñaa ak muudu ñoo bokku ndey ñoo bokku baay ñoo bokku métier mi est-ce que yaa ngi wax la xam na tàllal nañ ma micro ne xaw ma père dugal nee na lan ma ne leen du ma wax ci moom ndax sama papa la ji nga nit kilo kilo mat waajur dee ko xoolee bëtu waajur mbub moo sol jotuloo bu ko solal sa nawle man du ma wax nit lu ñaaw du ma ko def ci métier bi lañ nekk nag sama mbër laa am nag am naa droit kum àndal ku muy mën di bëreel ma nekk ci ginnaaw ba keroog yàlla du ñu defal jàmm. waaw mais dañoo sant dañoo sant xam nga tey li may wax rek ab taalibe du ragal ñun li may wax rek sama bët bi lu ma may sama fit bi may na ma ko. barke alxuraan lépp loo xamante ni nekk na sama xel mi pour ma war koo dem jëli ko defi ko dama koy def parce que sóoraale ma dara ragal yëpp yàlla la ñun yàlla moo ñu sàkk yàlla sama borom bi def li muy def ci ñun ba pare war ñoo mën a ragal tamit wallahi lazim waa comme li ma wax rek mag ak rakk la rek ñu bokk ndey ak baale Pikine Tyson moo fa dese nañ ko woo ngir yàlla mu ñëw. ah moo des Pikine bi. maa ngi koy sant bu baax baax ah, sama mag la sama kilifa sama lépp la daf may yéene daf may woo téléphone heure bu ne gis nga su seetaanee mu def ma mu wax ma lu ko naq lu ma naqari wallaahi la asim daf may woo daf may woo moom mi daal na ma man de lenn rek moo ma jaaxal li nga ne doo toppante kenn da ngay jéggal ñëpp. waaye konoon am na yenn wax yoo xam ne day jar dem ci yoon ma ne mun naa ma ne ñun ay taalibi Serigne Touba la ki nga xam ne moom lañ yaakaar sept ans sept mois lañ ko yóbbu ci àll bi te ay noonu ko yóbbu te bi mu ñibbisee da leen di jéggal kon ñun ñi doon ay taalibeem waruñoo def dara lu jéggale jéggale rek moo ñu war lu ma waay mën di def ci àdduna baal naa la barki Serigne Saliou mu di ma conseil ci loolu di ma ñaanal nag heure bu ne laa koy woo di ànd ak moom sama oto bi fu nañu jaar fa maa koy sant baax di ko gërëm baaba kampal damay wax lu am solo ji nga baaba damay nekk barke alxuraan damay nekk ci àll bi mu jekki jékki woo ma envoyé ma xaalis di ma ko jàppale te xam na situation bi parce que man du ma laaj kenn ñun ñëpp xam nañu li may wax samay propre moyen laay jël muudu sax mi nday mbili gi du ma ko laaj samay moyen bopp laay jël ngir xam ne kii man maa ko war a fay bu ma ko laajee rek day mel ne bu damay yokk bor bi mooy waral may jël samay propre moyen di ko ci def. billaahi wallaahi. nee naa la ragal yëpp yàlla ñun munuñ ñun tiitukaay niwut ci suñ suñ suñ suñ man damay toog ba mu yàgg ma ne man lan moo tax du ma tiit. wallaahi la azim ñi woon ci cimikaay bi yëpp mun nañ maa seere ma ku ñëw làmb ja tey gis na action yi di mu man maa leen di dalal ku wax ma ne la hee dalalal sa xel dañu am ndam parce que yàlla mii may ndam ki nga xam ne ku may nga am may nañu te gëm nañu lim ñu lu wér la te ko yóbbaale mais sant yàlla bu baax a baax waxoon naa leen lu neex waay na wax ku ma yeb dañoo yëggugut ci le premier. barki alxuraan newoon naa leen le premier dañ ma yeb man xaw lu ñaaw te du ma ko def te ba ci journaliste yi ngeen di gis nii wallahi la azim bu ma dajeeg ñoom sax ci bërëb boo xam ne sax man taxumaa jóg sax dama leen di ñeewantal ba nga xam ne damay jàpp ne su ma leen joxul sama dara sax pour ñu paas sax dama wallahi la azim du caa parce que dama leen jàppee comme sama bopp gis li ma leen wax gis nga joxe metti na trop waaye nangoo ko gën a metti ndax ku sañoon bokk ci ñuy joxe ñun ay taalibe lañ yàlla ñu yàlla suturaal yàlla dolli ñu jàmm barki alxuraan. estaf baa ngi fi man maa ngi ci ginnaaw Modou rek fu mu nekk foofu laa. man néew ma ci ay naan ko fii nga war a jaar a xam nga li muy wax mu ne ma acca rek ma ne baax na maa ngi ci yoon wa. baax na jërëjëf. tey moom da ngaa du wax lu ñaaw nit. wallaahi du wax ñaaw du wax wërtat nit ngay xool nit di wax ju ña wax ju ñaaw te gis nga borom ndey ju liggéey sooy wax ci moom na ko wax loo xam parce que ba du jégle kii li wax noonu ñun xamuñu lu ñaaw duñu ko wax duñu ko def ñun muudu lañ am am nañ droit lu muy def ñu couvrir ko parce que moom lañ ñu xamee ginnaaw yàlla àdduna bu ñu xamee monde entier ba nuy jariñu du tedd nag grâce à Modou Lo am na ñu doon àndal nag mais bu ñu àdduna xamee grâce à Modou as gor da ngay gore mbaa nga doon ab jaam ñun xamuñu lu ñaaw duñu ko wax waaye nag lépp lu ñu nit wax jéggal naa ko kii boo gisee ma ñëw toojal ko ne ko kàppoo man xam naa moom xam na bi ma defee li may def ba noppi bay dem billaahi wallaahi tallaahi dama ko woo ñu déyante mu waatal ma ci Serigne Saliou ma ne ko jëruwaat wallaahi tallaahi. mais fan nga tegoon na ma wax la leen. billaahi lazi laa ilaaha illallah maa woo guddi man muudu loo man maa ko woo. wa rabbul kaabati ni ko muudu ba muy ma man ko boo ñaa day daan Balla Gaye su daanee Balla Gaye sa combat ak moom day taxaw. mu ne ma musoo maa wax luy deñ waaye lii nga ma wax nii gëw ma ko man ko war rabul kambat di ngeen bëre man ko su ngeen ko bëree di ngeen eh, su ngeen bëree yéen ñaar maa man ko di ko dóor boo ko dooree man ko day sukk toog man maa ko wax mu dóor maa ko wax Ibulaay gis nga Sa Touba mii daa bañ a décortiquer woon jël bi rek mais xam na lépp wasalaamaaleykum wa rahmatullah suñ coalition bi nag. waaw néew nañ dañ koy tas sànn ci sànn ci leer moo gën sànn ci lëndëm na dañoo jàng alxuraan de tappale wuñu bu baax. guy gi guy gi damay guy gi dafa am lu may leeral tuuti dafa. am na seen Thank you. doon siyaat baax a baax alhamdulilah waaw di sant yàlla di kontaan naa ci ndam li bu baax a baax a baax ndax ku nekk xam nañu gën a gént Ada Fass bi ñëw fekkee nee woon boo ñaar damaa yor loon bor te bor bi nag daa war a fay ñaar fayagul na benn te desalaat na ma beneen boo xam ne da koy war fay te ci kàttanu yàlla da koy fay pareegul léegi pareegul yàlla xam ne ci kàttanu yàlla bu faatuwut comme mag Sa Thiès laa soxla dafa bëri war a fay goo xam ne fayagu ko ndax bërki dem laa dugg ñëwaat fii ndax dafa am loo xam ne nit ki bu ko waxee ba pare man yóbbu ma nit ñi te sama kàddu egg fu ne bi ma ko waxee ni ma def moo damaa génne tey jii fi ma doon fi mu doon ngemboo ji nit ñëpp xamuñu ko moom laa doon dem xami ko dem naa ba topp ko ba xam dëkk bi mu nekkoon mi ngi nekkoon naa ginnaaw Jurbel dëkk bi ñuy wax Saam waaw li defoon lépp bañ defar ko li ñu koy defar ba kurusoo ko pare avant mu weesu jom ñaaji lépp toj nañ ko moom laa ndax damaa wax loo xamante ni premier janvier bi jàll dafa am lu def loo ne fàkk tey fay ko moo tax biñ naan ay gurus kat ak yoon la wax man ñun tiituñ ci wàllum gurus ndax kuñ ci xam xam ñu ko ñun dawuñu ci yooyu mais ñu ngi ciy sant yàlla baax a baax mais xam ne mooñ jàpp na lépp mais li ñu koy wax mooy ñii xaaraat beneen moom Sa Thiès lañ bëgg mu taxaw wala moo keneen ndax moom bëreegul léegi doo yore bëri yoo xam ne faaw yëpp la war a fay léegi bu yëpp pare man ma libéré ko ma dem mais li fekk bëreegul moom ko libéré sant nañ bu baax baax nag waaw ñëw ànd ak ki nga xamante ne mooy. waaw ndax loolu lépp bu amee saala ndax képp ku tudd Sa Touba laaj ko jàng képp ku laaj jàng laaj ko Sa Touba te lépp lu wax ay ay nit fekkee ay xarit lañ te xarit gi nekk dëgg la ci ñoom lépp loo xam ne kii nekk na ko ci rek da cee war a fekk ndax man bu ma amee bis moom da ci sonn moom tamit bu amee bis lépp lu mu def pour mu am ndam dañ koy def moo gis combat yi fiees yëpp loola ko war a ci kàttanu yàlla tamit loolu daal mais ñi ngi sant yàlla mi nga xamante ni moo jàpp na lépp incha allah rabbi di wax ne daal boo ñaa ngëndal Ada Fass fekkoon nga fa may na dafa yoreel bor fayeegun na benn bu fayee bi des ma bàyyi gu ma dem libéré ko ah, te jii fii li gënoon jafe nit ñi dañoo laaj naan boo ñaaw fu muy dugg man maa maa ngi njëkk a dugg di ko xam dëkk bi mu nekk ak maam ja num tudd ak garab ga ci biir daqaar gi ci biir kër gaak lépp laa lijjanti tey ba tey ndax lamb boo xasee bay def da koy topp ba mu jeex doo ca bàyyi détail loolu la nag ndax nit gi pour nga waajal ko foog nga xam fi mu yëpp ay peesam mooy tax bu nga jàpp ko day yomb mais tey nag lépp nag ginnaaw bu amee nag moom yàlla la rek ñu ngi ciy sant yàlla aussi nag ñi ngi xaaral ab combat mu taxaw waaw maa ngi xaaral ah, ah, moom la ma waxoon rek moog Sa Thiès bu bu taxawut dinaa wut xaalis man dëgg ko dafa desaat yéen combat yàlla xam na ko te dina ko fay lépp lay fay benn par benn ba mu jeex bu ko defee ma libéré ko moom fu mu neex mu dem mais li fay jël li fay bëriwu ci man du dem maa ngi koy xaaral ci yéen combat incha allah maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. combat bi combat Modou gépp kuy bëri moom faaw nga pare ci ci physique ak ci xeex ak ji lépp ci bagaar ak ji lu doon ndax moom mystique kese doonu ko te yor na ñoo xamante ni tamit lépp luñ mën a feree mën nañ kaa fenn duñ ci am benn problème loolu la woon quoi sant nañ baax gërëm jërëjëf jërëjëf. kay kay kay kay kay kay sëñ Mos sëñ Mos. Oh! Mor la la nga waxoon yëpp dëgg la. roi bi dañ fi nga ko xaar après nga boobu léegi nga bëgg a waaw. néew nga ne Modou Lo day daan Boy Niang numéro waaw loolu bu baax nag wax mu anta yàlla suñu borom la neex ñoom dañoo waaj ñu waaj yàlla moo leen may tey xañ ñu waaye yàlla moo ñu may Boy Niang def na lépp lu mu waroon def ñu ngi koy ñaanal bu amatee benn combat yàlla na ko yàlla may ndam dimbali ci lu ma dëgg yàlla ak Tafa Kandji ndax suma xarit la waxtaan nañ bu baax si laaf bi gis nañ ne waxtaan ñu ay nit yu baax mais tey moom ñu la mënoon demee quoi roy foofu France foos yi añum gros soog jógeegul parcelle de. mais sëñ bi bi may wax loolu fan nga ko tegoon parce que heure bu la dëkkee micro nga ne Modou Lo day daan Boy. waaw wax damay wax lu wér ndax damaa yor njaboot yor famille dépassé naa fi nga xam ne tey su ëllëgee damay vaare di ma kii man dépassé naa loolu lépp lu wax rek wér na ma tey wóoroo na lu mu di xew rek parcelle fan waaw. ma waaj tey damaa def lépp lu ma waroon def 10 heures midi fi matal sama doon ànd ak moom dem esat wàcc cumukaay bi taxaw ko mu nit ku baax nit ku reconnaissant di sant Payz bu baax a baax waaw Payz lépp moom la quoi mais tamit wax dëgg yàlla moom kontaan naa trop trop trop trop waaw. mu mel ne golo gaa ci kaw parce que waxoon nañu golo wàccal may sama. golo du wàcc Modou Lo ñi xamuñu ko xamuñu Modou Lo Modou Lo la yàlla da koo may néew naa suñu xeexee mu duma ko suñu bëree mu daan ko te bu daa kaw. dafa kaw tey si biir bëre mais dem na ci moom nag dëgg dafa lépp lu waroon def te yàlla ana ñu waaw. ndaanaan la xaye la mi ngi si yoonam di dem bu mu décroisé na defarwaat ñëwaat daa bokk si laam dina mos a nekk waa les arènes moom Boy Niang ah. waaw fu mu teg tànk ko teg yi ñu ne woon coalition sëriñu Modou Lo yi xam ne dañu benn coalition tey le premier coalition bi day tas. coalition bi koy tas judoogul bi ah koy tas judoogul sax su ma ne man maay xanaa ma xaw a caaxaane bis mais barke Cheikh Tidiane li ma bëgg si bis looloo si am man du ma caaxaan damay liggéey lépp loo bëgg si laam looloo si am tool naa bëri rek mais gisuñu ma ba ma ba mu dalee yóbbu mbër ñu gis ma ma wàcc am defet amagul de lan liggéey liggéey ñuy préféré di fils wala mu loo maire Pikine maire bu bees bi xam naa su ma dem defar sama kër mu ta yàq ah instant yii dafa leer. nga ne ko defar carte d'identité ci moom ngay jaar. non man damay changé sama carte Pikine di leen remercier nag ñoom ñëpp rek di baal ak tamit sport la woon rek waaw sport ay boole mais wut a tàqale bu jeexee jeex na waaw du yàlla non man dépense naa fu may baare man taalibe seen sëñ Babacar laa man taalibe Cheikh laa kenn du ma baar salaatu fay la yaakaar ak jot du kamal uh-huh. lu ma si fëgg dégg suba dinañ fa ñëw ñu gën a toj affaire yi incha benn problème